lan la Rayane kii yow la Rayane lan laa la def yow la moo tax ma lay woo nga gis sama appel jëloo dangaa xam nan laa fanaane Rayane dangaa bon de lii rek laa doon ñaan yàlla bon miin macha allah leer am yaram danga may ñaawal naka laa la ñaawale ñaaw yow yaa ngi si jàmm fii est-ce defaat deux semaines yaa mën a fen yow ngay saaga yow du wax katu dëgg yow léegi la ñu ñibbi léegi kenn du yëg ni sax yow ñu ngi yow léegi la ñibbi. xanaa balaa may ñibbi di nga may ma nuyu waa kër gi. nuyoo kenn laa wax. sal. mon amour. Euh. Euh, oui, chérie, ma nag hmm? jot na nag pour euh, ce soir même tey tey laa bëgg tey ñu dem def déene bi pare nga. kañ tey nii. waaw man ça m'arrange kay ça m'arrange bien sûr. léegi je sais pas xaw ma fan ngay dama lay fekk salon parce que damay dem wuti robe bi ah dama koy indi kër ga wala lan laa war a def. waa est-ce que doo ma jël si woon salon benn yoon. ma fekk la salon man ma lay jël si salon. ok super kon on se retrouve là-bas. allez bisous bisous à tout à l'heure yaay sama bopp tëju na trop ci problème yu lëndam laa nekkee sama mariage trop baaxu si dama am problème ak sama jëkkër te sama bopp ubbu na. ñaw du yaa wutaloon sa bopp sa sa jëkkër sa jëkkër ji nga xam ne yorul àndul ak ma yor ah yow benn góor rey la fukk suur la loolu nga bëgg du danga ne woon yaa sa sëy aaki moo sa sëy jël sa sëy. en mbir mi egsi na tey ak ni nga mel ak ni nga jekke di dem ci yàmmaa kokki yi di ànd ak ñoom yaay maa ngi dund lu metti actuellement am na lu ma dal loo xam ne yowoo ko c'est la quatrième fois maa ngi tombé enceinte di ko perdre encore te loolu yombul ci jigéen nga sëy te doo mun am doom te tamit am na benn xaritam daal bu ñu xamante ñoom ñaar Europe xarit bi depuis ba mu ñëwee dakaar ba léegi sama àddina dafa yàqu dara baaxatul loolu sax tane na mun naa ko gérer mais nag am na lu ma wax lu ma dégg ba ni yow yaa ñëw di ma liggéey pour ma bañ am doom yaay xanaa yow bañoo maa noonu ba di ma def loolu. ak mën a fet ak mën a nar laa ilaaha illallaah day fen dafa bëgg a xàjjale sama digganteeg yow dafa bëgg nga jaar nii ma jaar ne xam nga lu ma bëgg lépp lu mu joué xam naa ko dafa bëgg nu ma nekkati arbitre bi yore sifflet bi ci digg terrain bi loolu la bañ yow nag dangaa ñàkk da ñàkk rasu sa bopp bi ndox amu ci sa njuur gii du mbalax kii da lay jël di la tot ci suuf gis nga kii salaamaaleykum mënalu la ko waaw dara mënu ko wax ji muy wax ay feni kese kese kese la man lu ma lay liggéeyee man dinaa la jur di la liggéey damaa sañ di la liggéey ah jur la ci farataak su na ma xamet war a jël sama sët yi di leen yóbbu jardin d'enfants di leen woowee ca caakoori naacee di leen woowee Frère Rozak. hey la Sophie mais tu m'as déçu on dirait li ma dégg yow yaa ko wax ah man boo gisee ma nopp la bëgg la parce que da wax dëgg man boo dul woon wax dëgg du ma nopp da ñeme am fit moo tax ma nopp la. mais foo fekk kuy fen du ñeme foo fekk fen du am fit mais bul ko fen euh, gis nga sa yaay ji ah, sa frère sa doom yëpp moo ko rey wax nga ma ko ma ko yaa ni da nga koy liggéey du am doom pour lan waxoo ko dëgg assume tes responsabilités yow da nga dëgg est-ce que yow yaayu nan yaaju baax moo noppal doomam yow noppaloo sa doom yaa ju bon moo sonal doomam loolu moo la dal mais c'est bien pour toi dama ñëw sa kër nga jàpp say tànku jëkkër di njambax njambaxee et puis mu ruus quoi mu lonk la fu nooy ngay palaane di ma harceler man di ma gëtë ak sa jëkkër dinaa leen duma Maman, tu m'as vraiment déçue. yow yaay yow yaa ma war a mun def lii lu tax man lii mérité wu ma ko pour lan nga may def lii yaay kon yow sa bon bu ñuy wax yëpp dëgg la maa ngi soog a xam nag sa vrai visage mais naka ngay mënee jur sa doom di ko liggéey li nga def tegoo ko fenn aha li moo tax sama baay bugg laa gis ak bët buggumaa gis ak bët ndax melukaay ni nga mel bon nga def baaxoo. lenn la laa lay wax bëggatuma la gis nga ñëw kër ga je veux plus te voir chez moi ne mets plus tes pieds à la maison à partir d'aujourd'hui amatuma yaay dégg nga li ma la wax jaxasoo naa jaxasoo naa ndax lii ma dégg Diliya mi wax ak kii ma dégg mu wax du waxu nit te ki wax du nit bu ma ko noppi waalee rek xarit bi may woote sama dëggante ak Sangomar kon gëmuma ko il faut ma wax Sangomar dëgg bi mu génn ci Diliya mi ndax fi mu bëgg dugg du foofu ay du yem ci bopp boroom ñi bari nañ fii pourquoi mu bëgg a miser wu fii la da koy bàyyi Sangomar day bàyyi Delia ndax su ma ko waxee dina ma gëm te dina ko def. moo nga fii lan moo fi solution nga assumer dem toogax sa jabar wax ko dëgg bi amul leneen et j'espère que nekkoo fi naan da ngay xalaat ay avortement c'est un crime pénal kaso ba ngay mujje Ryan demal nga assumer nga wax ak sa jabar mu xam dëgg Nabou Jah Nabou Jah. oui xaw waaye sa kër gi moom dootuma fi génnati bul ma waxati kaay seeti sama ndey wala kaay seeti sama baay am ngeen nu ngeen mel seetu leen bari ngeen wax doy ngeen waar man na kenn du ma lekk may dund yéen ay dëmm ngeen de seetu leen. bàyyi di tam sama waa kër ay dëmm. Ah. yow sax yaa ci tànn nag wax dëgg fa yàlla. da nga fàtte ne Delia meew bu ma nàmp man ca laa nàmp man su ma doon dëmm lekk naa la ba tey yaa si sama biir deret man toll laay ndekkee di añee màdd di reeree Dakar forox rek maa ko def mënuloo ma dara man boo may mar di siw te waxuma loolu sax Rayane sama xarit bi ma la doon wax nee daf may présenté ki mu bëgg a takk waaw tey la rendez-vous bi kaay fii ma natt sama yére nga tànnal ma ban moo ci dàq ma dem xam nga man lay may njëkkee li kaay Rayane eh eh waaye ndaw sàmb Rayane ñu dem nga tànn ma bu may sol waaye kii Rayane la walla ay sa ngéem góor du gaaw sa ngéem àdduna bi sax tey soo bëggoon mun naa la ko tànnal alhamdulilah nanga nga def ay yaa ngi ci lu ma lekk rek laa bëgg dama xiif dama xiif trop pièce rek ma am lu ma lekk. mais suwaay moo tax demoo liggéey yee boo liggéeyee di nga di nga am loo lekk tu es bien portant lago pato gumbo va travailler s'il te baal ma ak va Aide-le, Sangomar. Sangomar. Tu as les moyens, as les moyens Sangomar. Aujourd'hui, personne, personne, personne, personne. C'est malheureux. Et je ne veux pas, je ne veux pas que tu sois comme eux. le aide-le. Mori jënd lekk nga jënd naan su fekkee dama laa ñàkkal kersa léegi nga baal ma àq jublu ci woon loolu c'est juste dama jaaxle parce que je vois ne jeune nga et que tu es pour man sarax dafa yeeyoo ci ñi nga xam ni dañoo laago mënuñu liggéey moo tax ma wax li ma waxee léegi. Mais vas-y. Vas-y. Grand man xaw ma ñaan. Grand lii nga ma jox. su yaay laa wutal saako ceeb. ak diwlin. Grand maa door a génn prison. ci lu ma yëgul tinu ma mu jubal sama kër magu papa mu dàq ma grand na génne prison tey liggéey grand man mën naa muñ xiif mais lii pour sama yaay la lay wutal lu mu lekk sama yaram mu sonn grand calme-toi, d'accord Tu es un homme. Ok xamul hmm? ah, la ñuy def dinaa la jox sama carte nga ñëw sama bureau ñu toog waxtaan man ak yow prison nga génn ci loo xam ne yëgoo tinoo bu fekkee vraiment da nga innocent dinaa la jàppale ba at yi nga perte ci kaso ba di ko dabuwaat ba nga mën a jàppale sa yaay parce que gis naa ne ko am jom nga ku bëgg yaayam rek borom xol bu rafet la je te donne ma carte d' accord et sois fort tu es un am sama carte appelle-moi d' accord chérie. oui. maa baalu àq lépp li nga waxoon ci sama yaay dëgg la saafara bi mu def ci man ak ci yow ba tax mënuma am doom laa bëgg man ak yow ñu ànd ñu dem dindi ko liggéey ci comme ça man ma mun la. defal lépp li ma laaj depuis des années am ñaari bant walla benn bant bébé man loolu dama ne woon duma ci waxaat mais ginnaaw yow sa bopp dem nga ba gisal sa bopp dëgg bi leen rek laa bëgg ndax tu as li nga wax léegi ñu def ko mooy dem jéem kaa dindi ndax lan ku ne bëgg nga tudd sa way jur doom muy bu góor bi wala bu jigéen bi te man samay ñeeri way jur dañoo sonn ci man amoon naa yéene tudda leen doom parce que génn nañu àdduna bi si des boo jugul dindi loolu dinaa takk ñaareel am ak moom doom des na si yow na nga tànn ñaari ban la ci parce que man sama bonheur kenn duma ko xam te jullit laa am naa droit quatre femmes sama kër. waruma fi ñëw. boo fi ñëw danga war a woo fii du sa kër. xanaa yow dafa am looy nëbb. aw ma dara lu may nëbb mais dama am gan. kan moo am gan. man yow waaw. def. ça va ñu def fii <laughs> mais sëñ ñëw toog di jëm amoo loo koy laaj looy def fii mais yow xamoo sa bopp fii sama kër la sama jabara fi ne fii amatoo fi jabar mais yow sëñ bi xanaa ngay gént wala loolu dal. Ah, am na information nag ba ma lay wax mooy dama leen njëkk a remercier d'abord ndax yorin bi ci kër gi rafet na mais dama lay wàcceel dépense bi ci kër gi fayum courant bi fayum ndox bi ba ci luyaas bi ndax weer ak morom bi dafa jege ndax jigéen lépp lu mu mën a am ci situation. l'islam def na yow ku góor ki yaa ko war a yor xëy na nag yàlla moo yemalewul nga comprendre woon ma ci trop dorénavant bis ni ko tey lu dee ci kër gi man maa ko rey ndax am naa liggéey. ah mais loolu rek laa la doon ñaanal lépp looy yóotu mu sotti nga am sa liggéey mun téye sa famille franchement je très contente de cette nouvelle. waaw xëy na lu waay amul rek sa waay dakaa yor ba tax na mon ami mon frère mon plus que frère Sangomar moom laay liggéeyal moo ma jël si entreprise ba def ma fa kilifa nag euh, dénk ma ay ay ay mbir yu doy waar si biir entreprise bi parce que xam na sama qualité ak sama capacité. si nga kilifa yu mel ni yéen est-ce que kilifa nga sax. ñoo yàq réew mi dangeen ngeen bàyyi seen soxna ak seeni doom sa kër wut fu ngeen di jaaxaan di fa naan si ataaya as si ngeen dajale ci biir dëkk bi ëllëg ngeen dimbali ci seen njaboot boo demee sax lekkuñu ngeen ñëw fii ñu koy raasaatu xale yu jigéen yi di ko jël kii nobu la sa alal lay jël parce que doo ko takk léegi nag lii laa lay yëgal man maa la gën a bandi maa la ëpp doole dama lay duma maa la ëpp xaalis cuuc day fay xam lekkam bis bu ma la gisatee fii dootoo ko nettali yow li nga nekk actuellement picc sa moom ñuy sabe man je sais que liggéeyatoo yoratoo dara laa war a def ci àddina yow pour nga arrêter ànd ak Sangomar pour nga def croix ci Sangomar pourtant j'ai tout fait jéem naa lépp pour ngeen ñaar ngeen arrêter ànd bi mais rien vous êtes encore plus proche maintenant mais yow est defoon naa ne ma la joxee information bi da ngay jubilé da ngay kontaan et lan mooy sa problème ak Sangomar mais à la place de Sangomar nopp la est-ce que du yow yaa ko nopp est-ce que du restaurant ba nga doon wax moo lay invité yow yaa ko invité mais lan ngay manigancé hmm. du ma ci sori. boo bëggee lu la leer da koy laaj soxna si du mën nga ñëw di ko laaj d'accord. Ah ma may xoolee war nga ma jënde muusumale yambar bi gis nga yow xam loo bëgg nga xam ko fii amoo dara loo fiy dogal di wax ki fii dugg ku fi dul dugg fii si chez sama kër la fayoo fi luyaas amoo fi benn dogal bañ ngeen ko bañ Sangomar man dinaa ko découvrir naa la wax nag benn anecdote quand j'étais un peu dafa am kenn ku jigéen ku ma doon romb benn xale bu jigéen su ma rombee dafa may wax lu ne danga soof ki neexuma ba ma am retour boobu xam nga à la lan laa découvrir nekk daf ma nopp te mënumaa ñëw xaar bi ma xaar te ñëw ma loolu moo tax gis ma ak gis bu ci dem la yemale te bari na si jamono ji est-ce que hmm. nekkoo stade boobu hmm. dis ndax boo ma ko gënee bëgg ma balaa moom bu ma la gënee bëgg ma sàngomar mag moom du xaalis du jigéen encore une sama xarit la te mama yi may wax ak yow sama boos la nit nag ku la yoral sa teraanga da nga koy jàppee ñaari loxo. sango ma damaa bëgg nga ñibbisi. xoolal bu ma jéem a ridiculiser ma dégg. dama bëgg nga ñibbisi laa wax. ana sa soxna sa poupée bi anamu. Hmm? yow neewoo ma fii da nga am sa xale bu ndaw ah booy defanteel ay petit câlin yu kenn xamul. nii laay waxee sama kër nga ma fekk nu ma neex laay wax yow da nga am chance sax fi ne ndànk laay wax tàkk gu sa kaw de. <laughs> wala dangaa dem ba ci biir nànd ko xam ban façon jigéen la yow xam nga ni kooku musulaa bëgg kooku alal la la toppee woon léegi nag wittin na la ba nga set mu sànni la mais dama la bëgg a xamal lu bariwul tuuti man duma koy jël di ko fajee mer déedéet di ngeen yaakaar jigéen yéen góor ñi loolu ngeen jàpp jigéen daal mooy garabu jigéen moroomu jigéenam non non man doo ma fajee ay mer. man awma ci problème de sëy mooy toll foo xam ne ñaari couple bu ñu xool seen intérêt parce que xëy na amatoo looy def ci man amatuma lu may wut ci yow mais dañoo bokk lu ñu mënta seet doomu yuy Isaac. yaa ngi koy doo a xalaat. te il est perturbé fi mu toll nii mënatuma ko téye mënatuma ko contrôler. parce que il me parle toujours de sa maman say wax rek la may wax toujours toujours toujours maa ko jur maay baayam dëgg la waaye sama nawle la loolu tax ma bëgg nga ñibbisi jàppale ma ci aveniru Isaac ma bëgg nga réfléchir ci bu baax parce que c'est important Isaac bu yàqoo maag yow yëpp la yàqul na nga ci réfléchir man damay dem mais gis nga sa waa ji sa muus mi sama xol mayuma ma ko fi bàyyi na génn ñu dem maak moom walla ma toog fi yow xanaa amoo déggukaay fii amoo loo fi dogal sooy dem nga jaar nii nga dem kon man ma toog fi waaw kon fanaan fi. acca j'ai tout mon temps. waaw ah, kon baax na.